njiitub alliance nationale pour la démocratie ànd saxal liggéey mu ngi waajal bu baax a baax campagne outil parrainage tax na mu dal di indi ab présentation jëm ci benn technologie ci kanamu ay militant wam ak i ñooñam jóge ci région yi nekk fii ci Sénégal lu ni mel di leen may ñu mën a xam ana collecte yi ak nombre de parrains yi fu mu toll. ñu tànn ci nag juróomi téeméer muy 500 personnalités ñu ni leen kenn ku ci nekk boo indee téeméer. ñu takkal la ndombal tànku champion ak benn étoile soo indee ñaar téeméer nekk double champion nga am ñaari étoile soo amee ñetti téeméer noonu soo amee juróomi téeméer nag nekk super champion soo amee junni nekk mentor maanaam kuy jiite nag. avec cet outil nous avons le contrôle de ce qui se passe dans le parrainage. gayndewu bawol bii nag bëgg naa jege askan wi loolu ba tax mu taxawal ab slogan jaare ko ci ab slogan. gox yi mooy nguur gi mu dal di nag dikkit ci programme am taxaw ci li gën a yitteel askan wi. soo indee état ci terroir bi nag njàngin wi nga xam ne moom lañu bëgg a jàng foofa ca gox ba moom ngay jàngale su ma demee Touba état dootul toog itam di jël la ñuy la ñuy la or bi ca Sabodala di ko indi ci kaw nga xam ne dañuy arrêté internet bi pour mën koo xañ population yi bu boobaa. ñoom ña dëkk foofa ñoom ñooy xool nu ñuy def seen or ñoom ñooy xool nu ñu koy jariñoo ñooy xool lam leen di jar. lu jëm nag ci parrainage bi docteur Aïda Mbodj li mu xamle mooy ne nag fasul yéene taxaw benn yoon di seetaan li nga xam ne jàpp na ne dañu ko amal rek ngir dal gàllankoor ñi nga xam ne ay candidat lañu te ñu samp seen dënd ci élection présidentielle yi ñu jëm.